nekkuma équipe nationale xam nga dañ naan senegal nag y a 18 millions d'entraîneurs waaye am naa sañ-sañ sama équipe nationale am naa sañ-sañ wax lu ci ne wala lu mu ci lu mu ci xalaat Aliou Cissé c'est un entraîneur ba muy doon footballeur tojul fenn xaar loo def defense ca gannaaw loo doon ne mu bëgg ñu indi système boo xamee ni daanaka euh, ñoom seen biir sax. ñoom ñoo njëkk wax ne ni système bi foog ñu xoolaat ko bu ñu demee ba Sadio Mané naan système bi foog ñu xoolaat ko yàlla bu mu indi féewaloo digganteem ak Aliou Cissé mais il a parfaitement raison parce que moom ci benn moment mu ngi woon ci tribune bi toog di seetaan xam ndax baax na wala baaxul. mu ne ni faw ñu changer système bi que ah, nañ ko mon mu changer système j'ai vu des gens dire euh, non euh, ministre de la jeunesse euh, des sports et de la culture euh, dafa ñàkk wërsëg mais du ci moom Footballul? conditions yi footballeur yi war a jox euh, am jox nañ leen ko dugal nañ leen ci conditions yooyu gis un entraîneur ci yeneen i réew yi la tour, tur siiw siiw siiw boo doxalul dañ la fay jële teg fa keneen wax man dañ ko fa war a jële de mais entraîneur xoolal yeneen équipe yu mag yi ci nekk ci àdduna ay entraîneur yu gën a siiw suñu entraîneur di am ay victoire ak ak lu nekk am ku bu nekk ñu jël ko waaye bu ñu doxalul dañ ko naan toogal nga xaar ñu seet keneen koo xam ne mën naa doxal ah peut-être que li ko li Sadio Mané wax ne ko foog ñu changer système de jeu bi dina ci bàyyi xel donte nag dafa mel ni man Aliou Cissé dafa wowle dëgër bopp Mon beau, la preuve il te dit que non je suis satisfait du. du match il est content ci une prestation même si as ah, gagné une waaw il est satisfait c'est son droit mais moi, je suis pas satisfait peut-être un amateur de football mais ñuy donne satisfaire ñu ah waaw mais léegi nag coow li mooy <laughs> Mauritanie bee ñuy xeeb nag buñ ko xeeb mhm. Mauritanie gis nañu jaloore yu def ci mhm. Coupe d'Afrique bi ñu euh, c'est une équipe bohemienne qui en veut. qui va jouer ben, grandement ses chances par rapport au Sénégal. Nous faisons que non Sénégal, non, au contraire. Mauritanie, le mou bëgg mom le Sénégal bëgg mom le benen dëkk bëgg. Mais bu ñu démé ba ay 1-1 ci match bu melni. Ah, nga koy football sa biir dëkk. Kontaanuma té man. Amir, est-ce que kontaan nous dem yaa ngi ci stade de Kansadio, nous Mané ñu dit que dañu war revoir